parce que a dafa wax te wax na lu bari ma bëgg ci àddu àddu bu gàtt mais bala ma addu ci li a wax te addu bu gàtt lay doon. Mhm. damay wax ci li Alioune Tine wax léegi nii dañ ko def ci list ñi nga xam ni dañuy lakk kër. Mhm. loolu foog ma àddu ci door a àddu ci lu gàtt ci li a wax delloo kàddu gi Alioune Tine. <laughs> Euh, li may addu ci lakkum kër yi xamul xamalal moo indi lakkum kër yi parce que ñi lakk kër. boo leen nee firil ma kër duñ la ko firil gis nga képp ku xam lu kër di firi bu ñu la ko lakkaloo kala ko lakkaloo ngay lakk benn warante amu ci. est-ce nekkoon di ko sophistiqué. parce que ñoom ah, même tuuti rek même tuuti ma wax la maa ngi ñëw. ma boolewaale ci laaj koy def. maa ngi ñëw liñ ci jublu mooy naqaral ki nga xam ne ni moom la képp ku ñu lakkuloo kër nga lakk ko booba danga xamul kër lu muy firi yow mi koy lakk xamoo lu kër di firi. kilo ko lakk loo xamul nu kër di firi kuñ ni njiit nga ëllëg te xamoo lu kër di firi buñ ku la jiital moo dóor moo dóor loxoom ci ëkk xamoo lu kër di firi damay joxe benn misaal rek ñu ni dañuy lakk kër Abdoulatif Coulibaly damay joxe misaal rek mënoon naa tudd kër Matar Ba parce dal na ci kawam aussi. waaw dal na ci kawam mm. wala ma tëdd ma dugg beneen kër mais juum nañu lakkuñu kër Abdoulatif Coulibaly lakkuñu kër Matar Ba ñu maara day taali kër Alioune bu kenn laal kër kër Alioune bu kenn laal kër Matar Ba bu kenn laal kër Nguuda bu kenn laal kër Sëñ bu kenn laal këru Kane parce que kër dafa am lu mu firi firi kër li mu firi firiwul ka nekk ca bopp kër ba di Alioune boo defee ni kër Alioune Alioune la firi juum nga firiwul loolu xam nga lan la kër di firi. Mm-hmm. kër li muy firi mooy tout tànk ya fa dëkk. Mm-hmm. ay jigéen nekk fa. di leen tette di leen yar pour ëllëg ñu doon ay mukallaf yoo mën a jébbal pénc mi pour ñu defar dund yëwanal pénc loolu la kër di firi kër am na leneen lu muy firi loo xam mën nañ ko dolli ci loolu muy firi leneen li muy firi mooy sama maam ji feebar te fa mu dëkk ca wurusu gi wala fa mu dëkk ca Koungheul wala ca Matam amu fa jàppandi amu fa kenn ku ko mën a toppatoo may doomam di sëtam ma ni ko daw sil fii ba ci ndakaaru wala ba Thiès wala ba xombal soo ñëwee ma fat la ci kër gi su ma la fàttee ci kër yi wutal la docteur bu lay wattu ndax mag nga te mënatoo sa bopp loolu la kër di firi moo tax sunu sang bu tedd bi di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam buñ ba bañ ko laajee lan mooy jihaad dafa sukkandiku ci li kër di firi te moo am lu ma ci junj rek ak surga ba ca kër ga ak doxandeem ba ca kër ga ak ki nga xam ne nii dañ ko dàqi réew muy dow di dow ba yàgg mu ni sarax ci biir kër fekk fa ku am yërmande mu làq ko di ko yar di ko yar ba mu doon mu kàllaf doon am njëriñ ba dellu réewam loolu la kër di firi kon boo ko lakkee lakk nga tut tànk ba lakk màggat gañ fay gañ fa fat di ko di ko toppatoo lakk nga surga ba fa nekk lakk nga jigéen ña ak doxandeem ya sunu sang bu tedd bi xam nga lan la wax ci kër daf ni dafa njëkk fiiri firi bi muy firi jihaad daf ni jihaad du commencé ci ki nga xam ni day jihaad lu dul dañu ko dóor mu war a fayu waxuñu la nga tëb rek du dóor ni yaa ngi ci jihaad déedéet dañ lay dóor ngay fayu gis nga fayu googu fa la jihaad di commencé mais dañ naan la ci biir fayu gi doo lakk kër doo lakk tool doo lakk marché doo rey xale doo rey jigéen doo rey mag te loolu lépp ñu ne la bu ko laal boo demee ci kër fekk ko fa ndax am na barab boo xam ni ci biir kër ga mooy jumaa kër gi fa la ñuy jullee bu julli jotee loolu mooy loolu la kër di firi moo tax benn njiit bu mën a doon ak ña ànd ak yow képp ku topp nga njiit gi ci lakkal kër jàppal ni sa njiit xamul lu kër di firi ku xamul lu kër di firi xamuloo lu pénc di ak quartier di firi ku xamul lu quartier di firi xamoo lu lu lu réew di firi ku xamul lu réew di firi xamoo lu Afrique di firi ku xamul lu Afrique di firi xamoo lu àddina di firi matoo njiit loolu laa bëgg ñëpp bàyyi ci xel. da nga jàpp danga jàpp ne am na dafa am njiit yu est-ce que njiit yi ñoo. Mm, amu fi dara ci wàllu amu fi dara fi dara ci wàllu politique. Mhm. lu nit di def te du sa njiit moo la seetaan. dafa am lu nguur a wax léegi lu am solo def ni moom ki nga xam ne ni moom la àndal di liggéey te am ci moom yaakaar tudd turam nee na kooku am na baat boo xam ne nii bu nee xale yi teg leen ko ci suuf ñu teg leen ko ci suuf na kooku wax xale yi ni leen lakk këri jàmbur teg leen ko ci suuf ndax kër alluntin signif firiwul alluntin ma nga firi soxna alluntin ma nga firi tiit tuut tànk bañ fay tàggat ëllëg mu mën a nekk mu mukallaf boo xam ne nii boo ko jëbalee pénc mi mu defar dund yëwanal pénc ku xamul loolu waxuma la samba boy nga waaye leneen nga. mais ci àtte bi parce que loolu ba léegi moom la ñu réglé gul. waaw ci àtte bi waaw.